asalaamaaleykum daleen ak jàmm beneen yoon ci seen youtube bi di Sencours TV ngir jàng anglais ci wolof ànd ci ak Mister Ba tey nag dañuy continuer ak yéen wala ñëw ak yéen ci euh, beneen série boo xam ne bu bees lay nekk mu war a nekk sept vidéo incha allah mu jëm ci pronom bu nekk ci anglais nan lañ koy jëfandikoo ba. ba mu gën a leer surtout ñi nga xam ne ñu ngi soog a door incha allah euh, vidéo bii nag moom la ñuy njëkkee mooy ay ak lépp lu ci aju maanaam aayam ak lépp lu ci aju ay bi nga xam ne mooy tekki man buñ ci paree dañ dem ci wii buñ paree ci wii dem si yu buñ paree ci yu dem si day buñ paree si day dem si he buñ paree si he dem si she buñ si paree moom itam dem si it ba mu leer incha allah ok let's go. I I mooy man I mooy man léegi nag lépp lu aju si I incha allah ci côté yu mën a nekkee moom la ñuy leeral fii. dañ ko def ak yeneen yépp ba mu jeex I am I am man maa di walla man maa ngi léegi I lan lañu ciy def mooy ñi boole ko ak noun noun mooy lan mooy tur mooy tur exemple ma ne I am Ba dégg nga I Ba man maa di Mr Ba I am Ba man maa di Mr Ba noonu la keneen mën a waxee ne I am man maa di Abdou beneen góor noonu la mën a waxee ne I am Abdou maa di la jigéen amee droit wax ne I am Fatou man maa di Fatou kon I am ajuwul ci kenn ku dul kiy wax rekk ok man léegi ñu boole ko ak lan ad adjectif muy lan melokaan wala melo wala melal bi si njëkk su ma ne I am fine ayam I am gi jéggagul fa mu nekk de I am maa ngi si jàmm ayam am man maa ngi si jàmm walla ma ne I am black I am black man ku ñuul laa. nit ku ñuul la I am black loolu moo yóbbaale bépp melo dégg kon mën na ànd ak I am white brown yëpp beneen bi ci topp mooy I am short I am short mooy man dama gàtt loolu mooy yóbbuwaale yeneen melokaani gàtt yëpp walla gudd yépp comme I am tall dégg nga I am medium bépp melokaan kon I am buñ koy wax. ayam lañuy wax yow bu fekkee yow mi koy wax yow la concerné ayam nee naa la bii ayam kese lañ si expliqué I am fine man maa ngi si jàmm I am not fine nekkuma si jàmm am black man ku ñuul laa wala am short man ku gàtt la léegi ayam am ñu boole ko ak temps boo xam ne mooy present continuous mooy jëf ju teew ba léegi boo koy wax I ngay wax exemple ma ne. I am teaching I am teaching ku nekk xam nga ne I am teaching man maa ngi jàngale jamono bii may wax ak yow maa ngi jàngale I am teaching kon jamono bi may wax ak yow li may def su ma koy nettali dama naan I am indi baat bi boole kook ko ing mu nekk I am teaching yow nag looy def bu fekkee yaa ngi liggéey bu la neex nga ne I am bu fekkee yaa ngi lekk bu la neex nga ne I am eating ok wala benn exemple ma ne I am speaking I am speaking I am speaking ok maa ngi wax <laughs> kanaa leer na ne maa ngi wax noppiwu ma ndax su ma noppiwoon doo dégg sama baat kon jamono bii may wax ma ma nekk ak yow maa ngi wax I am speaking ok I am speaking yow bu la neexee nga ne I am listening mooy maa ngi déglu dégg beneen exemple ma ne I am explaining I am explaining. I am explaining maa ngi expliquer kanaa leer na ne maa ngi expliquer ba xam maa ngi lay expliquer pour nga comprendre lii kon jamono bii ma nekk ak yow maa ngi lay expliquer kon loolu mooy present continuous lan lay ànd ak bu fekkee yow muy wax yow la concerné I am ngay wax I am ok nga koy liiraat I am teaching maa ngi nii di jàngale I am speaking maa ngi nii di wax ci même temps may jàngale. I am explaining maa ngi nii di expliquer di la leeral ci même waxtu bi may wax ak yow kon boo xoolee I am jógul fa mu nekkoon ba léegi ndax man la concerné ok man mii nekk di wax la concerné bu la a ngi ne I am learning maa ngi jàng wala nga ne I am listening maa ngi déglu wala nga ne I am understanding maa ngi comprendre. ñu yóbbu ko feneen mooy aayam mu ànd ak lan mu ànd ak job mooy liggéey exemple bu ma ne I am a teacher yaakaar naa ne man ab teacher la I a teacher mooy man teacher la dégg man ab jàngalekat la I a teacher man ab jàngalekat la dégg nga gis nga même bu fekkee ne li ngay wax lu aju ci liggéey la I am ngay wax dégg I am a teacher man jàngalekat la dégg nga am a teacher man jàngalekat la yow nag yaa xam looy def bu dee ne liggéeykat nga I a worker mooy liggéeykat bu dee ne eh, jaaykat nga nga ne I a trader man commerçant la dégg nga ba léegi mën naa wax ne I am a driver I am a driver I am a driver man ab dawalkat la man ab dawalkat la I am a driver I drive mooy damay dawal I am a driver mooy man dawalkat la maanaam chauffeur la damay dawal ok kon ba léegi bu fekkee li ngay wax job la concerné li ngay def booba I am ngay wax I am a teacher comme exemple bi ma jël si man I am a teacher wala ma ne I am a driver dégg ab dawalkat laa damay dawal dégg I am a driver ok yow nag bu la neexee nga wax métier bu la neex booy def booy wax ne moom nga danga naan I am. dégg nga I am a student man jàngal jàngkat la dégg nga beneen exemple I am a trader man commerçant la I am a trader man maanaam kuy jaay laa di jënd man ab commerçant la I am a trader kon déglu bu baax bu fekkee ne tur nga bëgg a joxe wala yow yaay kan danga naan I exemple ma ne I am Ba bu fekkee sa tolluwaayu jamono nga bëgg a wax. danga naan I am mooy nga ne I am fine wala nga ne I am not fine am ok wala am not ok maa ngi si jàmm wala nekkuma si jàmm bu fekkee sa tolluwaayu meloo nga bëgg a wax danga naan I am moo tax nga ne I black wala nga ne I am white wala nga ne I am brown dégg nga bu fekkente ne li nga bëgg a wax mu ngi concerné jamono bi nga koy defee boobaa danga naan I am comme ma ne I am teaching right now maa ngi jàngale. léegi nii dégg walla I am maa ngi déglu waaye wala I am explaining maa ngi expliquer dégg wala I am eating maa ngi lekk bu fekkente ne li nga bëgg a wax concerné wul yooyu yëpp waaye lim mu mooy sa jëf nga bëgg wax yow lan ngay def boobaa danga naan aayam am I teacher man jàngalekat la I am a driver man chauffeur la damay dawal I a trader man ab jaay kat la yaakaar naa leer na donc kon ñu bàyyi ci xel bu baax incha allah série bi dama koy def ba juróom-ñaari prono yépp jeex mu ndax nga mën ko comprendre incha allah ok bu leen fàtte abonné aussi di like vidéo yi incha allah ok Bye bye.